mesdames et messieurs et messieurs gars yi bu amis téléspectateurs yi nga xam ñu ngi à chaque fois ci UDTV. Nous ñu ngi leen nous bu tranquillement merci de nous recevoir et merci de nous suivre ci UDTV. TV di leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégte émission. Showtime, un grand rendez-vous urbain, une façon de dire bonsoir à tous nos téléspectateurs unis cette année à travers le monde. Nous les piquons pour Bahabahaba, clendé à nos amis de Paris, nous les pour Bahabah, qui apprécient bien sûr ce travail, au bien ramené nous collègues, nous les diageophol pour Bahabah. Alors, diageophol hypopériop euh, tranquillement, nous les jar pour Bahabah. Alors, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Tu UDTV, en de mon moyen télé numérique, nekk ci Jolof ak li ko di len jaajëfal di len bigg bu baax baax crème bi nga xamni ñu ngi kiife di ko yëg bu baax a baax ñu len leen di jaajëfal di ziar bu baax baax où que vous soyez ci biir Jolof ci aduna bi ñu ngi leen di béggee bu baax baax c'est un réel plaisir ce soir comme tous les soirs on a un grand plaisir de recevoir euh, quelqu'un qu'on apprécie bien sûr très très fort nek ci crème hip hop bi di def affaire bu nice tay mom la dalal ci seen émission Showtime Diko nan naan salaamaaleykum Carrefour ziar naa la. delloo ziar ñu ngi lay delloo ziar DJ Zo. Hmm. di wax salaamaaleykum Jolof ak li ko wër salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum all round the world donc fi la aka Zero Mosquée from Bawal maa ngi ziar mbokku téléspectateurs yëpp di leen give respect di leen wax ne jaajëf. jaajëf mu ngi noonu eh, Carrefour Carré fi Tom ekey eh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax eh, di la dalal ci showtime di am mbégte lool dalal la tey ce grand rendez-vous war a waxtaan ak yow ci en général ci carrière ci hip hop maa ngi lay ziar bu baax a baax d'abord li nga xam moom lañ lay njëkk a laaj mooy par rapport ak sa carrière est-ce que mun nga dellu si tuuti ci fi Tom carrière am un peu en résumé. yee di DJ donc loolu dañ ci sawar sawar a wax ci carrière bi parce que Fito moom mhm. ku ko xam xam ne xamoon nga ko ci crew muy Carrefour Carré mhm. au fur et à mesure ñuy dem di dem ba crew boobu mujj tas lan moo ko tas li ko tas du dara du dañoo am problème wala mhm. dañoo am ay jafe-jafe noonu juste gars yi ma nekkaloon ñoom ñoo décidé bàyyi rab ok voilà ñaar ñëpp dañu bàyyi rab kenn ki mën naa wax ne sama ami d'enfance la keneen ki mm. nag donc rab moo tax ñu xamante mais dem nañ ba aussi tamit mën naa la wax ne raw nañ ay frère quoi donc xam doo comprendre mm-hmm. donc ci tabaski bi rek jóge na sama gaale ñu waxtaan ci hip hop lu bëri waxtaan tëgg lu bëri mm-hmm. voilà léegi ñu bàyyi donc man ma décidé tamit continuer sama carrière solo ci musique mm-hmm. voilà continuer sa carrière solo parce que amour hip hop bi moo la moo la topp euh, nga ànd ak moom euh, di woy euh, aussi tamit gars yi gëmoon na la xam aussi ci ci ci ci ci ci Bawol aussi Bawol bi nga fa nekkee est-ce mën nga si dellu si tuuti waaw waaw waaw waaw bawal donc nekk nañ fa ba ma fay nekk mën naa wax ne donc carrefour carré nag moo ëpp li mu li mu li mu li mu jóg jóg foofu noonu ci bawal ok voilà parce que on a fait pas mal de trucs yoo xamante ne nii okay. donc gars yi doon nañ ko apprécier mhm. donc boo duggee bawal dugg mbàkke ak jurbel côté yooyu yëpp de boo nee carrefour carré donc moom la ñuy gën a ràññee sax instant bi ko fi tomb quoi ok Mm-hmm. voilà Fitnam donc bi mu commencé donc carrière solo am. Mm-hmm. dafa tëju woon di job ndànk-ndànk daanul woon sax dem ay concert lu bëri ah. lu ci ne ay bawal. Mm-hmm. yàgg nañ ko fa invité ay concert mais mu toog ci lu xam rek di job parce que xam nga am na lu mu bëgg a génnaale quoi. noonu dafa demee juste. mouvement bi foofu ci bawal comment ça se passe euh, bi mu fay nekk euh, Carrefour bi ngeen fay nekk euh, teg woon na amoon na avancé wala. waaw si si mi ngi doon dox 5 euh, 5 ans affaire yaa ngi doon nice et ba léegi tamit euh, damay wax ne mu ngi gën a nice. mi ngi gën a nice waaw. gaa yaa ngi def ay affaire yu dóoba dóoba dóob. ak fi mhm. hip hop bi toll nii. donc ñu ngi koy téye di liggéey liggéey bu jaar yoon. Mhm. voilà muy rappeurs yi muy DJ yi muy euh, xam nga. Mhm. ñeneen ñëpp ah, ñu nekk ci hip hop bi donc ñu ngi def le maximum pour xam nga yëkkati hip hop bawal quoi ñu ngi koy def. Mm, te foofu waaw beri na ay groupe waaw bëri na trop bëri na ay groupe waaw gars yaa dijawab job franchement ñu ngi job daal lu nice quoi ok yeah. ok bëgg ma cité donc mooy loolu damay juum mooy loolu mais am na ay talentueux yoo xamante ne ñu ngi foofu ok yoo xam lu nice la ñuy def lu doobu doobu doob sax waaye hmm. eh, depuis bi nga jëlee choisir après gars yi bàyyi nga ñëw carrière solo. carrière solo wala tegu mu mm. nekk carrière solo dafa c'est un difficile. dafa mm. xaw a métti parce que da ngay job seul euh, nga dugg ci carrière solo depuis bi nga ci duggee aussi euh, job bi nga xam ni euh, def nga ci nee nga benn essence da nga tëju. Mm-hmm. di job est-ce que mën nga revenir tuuti bi nga duggee ci carrière solo différence bi ak bi nga nekkee ak crew ban moo gën a gan gan moo gën a neex. Mm, waaw waaw waaw mën nañ ne donc booy xool crew metti na. Mm-hmm. voilà metti na trop jobu guru metti na trop ku ne xam na ko waaye euh, ci kaw ngeen bañ a déggoo quoi. ok ci kaw ngeen bañ a déggoo ci kaw ngeen bañ a suudeewu. Mhm. voilà mais tamit carrière solo noonu la méttee tamit moom tamit parce que lépp yow yaa koy joobal sa bopp. donc muy xam nga couple yi yaa koy dóoral sa bopp. refrain yi mhm. en même temps bu nekkul featuring yow yaa koy def. yow yaay ride lépp xam nga métti na franchement mais nag alhamdulilah donc ñu ngi ciy génn. ndànk ndànk que. li ñuy wax rek affaire yi dafa mel ne dañ ko mbappat ñoom dañu yàgg di bërëng hip hop donc teewal nañ ko fu ne def nañ ci lu ne mhm. moo tax donc du metti ak ñun carrément quoi mhm. mënuñu wax ne nag du metti mais du metti ak mhm. parce que donc min nañ affaire yi xam nañ figure de style yi xam ah. tax du metti ak ñun quoi de tellement. mbappat bi aussi ci hip-hop dafa dafa dafa am solo ah. am na solo trop. am na solo trop. parce que dina permettre nga acquérir expérience. voilà. dana la permettre donc yow xam nga nga mën a teg ay affaire yu bëri bëri mhm. dana la permettre nga mën a génn ci yu bëri voilà parce que mooy li la wax rek da nga mbappat ci sayfa yi da nga mbappat ci toog di freestyle ak sa bopp xam mhm. mhm. nga da nga mbappat ci dem gëstu ji creuser loolu lépp ci mbappat bi la bokk bu ko gars di fàtte donc na ko booy di bàyyi xel parce que c' très important quoi. yow aussi dañuy faral souvent bu lay gisee sur scène da ngay def écotrip

Mm-hmm. donc moo tax damay wax ne man ñun dañoo mën li ñuy def teg ci wàcc suñu bopp mm-hmm. waxaltee gaa am ñu chef daal sa real hip hop mm-hmm. donc loolu la quoi mooy écotrip moo tax donc vidéo bi daf ma neex trop macha allah parce que nice na trop quoi écotrip bi nice na en même temps waaw doog quoi doog franchement ok écotrip doog aussi loolu dinañ indi su ci tout ci thème parce que aussi bu ñuy xool par rapport ak aussi euh, son yi ngay génnee thème bi dañuy gis ni souvent c'est très nice am na sa benn son boo xam ne daf ma marqué moom mooy yaay bi Euh, mu nekk son bu nice. Mm. est-ce que mun nga revenir un peu aussi ci ci ci ci bind bi parce que bind dafa am solo ci hip hop. mooy nattu bi. Mm-hmm. waaw mooy nattu. Mm-hmm. waaw dafa nice parce que donc mën naa wax ne donc nattu moom nattu la. ku nekk la ko yàlla di teg voilà ku mm-hmm. nekk donc moo koy dund. donc nattu moom nattu la rek donc foofu maa ngi wax euh, euh, yaay booy bul tiit lépp dina fëlaw.

yéen yéenay waxal askan bi parce que yéenay gis yéenay yéenay binde. Tay euh, fi Senegal toll tay, ci euh, jafe-jafe Yen en tant que des rappeurs euh, di ngeen ci am rôle am importance ban message tay ngay jox jeunes yi ñi nga xam ñu ngi tok di la seetaan à travers le monde ci par exemple nattu yi nga xam ni souvent moom mooy dal jeunes yi message nga leen di jox. waaw jeunes yi moom donc message moo leen di jox mooy ñu gën a concentré wu ci seen live. Mm-hmm. parce que gis nañ ni donc jamono ji fi mu toll nii. ndaw pour mu yàqu daf ci yomb trop. c'est vrai voilà daf ci mm-hmm. moo tax il faut ñu def a attention ci donc seen live. Mm-hmm. yi nga xamante ni mën na leen a sànq parce que booy xool zoo. waaw jamono ji ñu toll donc xale yi mën naa wax ne fowatuñ. ok fowatuñ quoi comme ni ñu daan fooy bu njëkk bu njëkk ay xale boo ci gis portable lay fooy. dugg ci mm-hmm. réseaux sociaux yi. Mm-hmm. donc ak réseaux sociaux moom. nekk ñun bu gën a nekkee ñun ay passé ba gendarme bu fële. waaw ñun foofu xel yi lañ doon def. voilà. Mm-hmm. booy foofutul léegi. booy donc li ñuy booy bu la gënoon tuuti fii nii tey donc boo dajee moom da nga naan kii sax moom ëpp moyen alors que moom li muy fawee rek mooy. technologie ñoom rek loolu loolu mooy seen foofu moo leen di gaañ souvent voilà ca foofu tamit moo leen di gaañ lu parce lu nekk ma nga fa mm-hmm. lu lu nekk ma nga fa loo xalaat ma nga fa mm-hmm. donc mooy loolu mm-hmm. moo tax daal il faut def attention donc ci seen live gën a toogaat di déglu mag ñi quoi. voilà gën a toogaat di déglu mag ñi di nangoo déglu conseil aussi. Mhm. parce que baax na mhm. euh, euh, hip hop au niveau national. Euh, mhm. taxawaay bi mu am tey en tant que rappeur yow noo ko jàngatee tey rappeurs yi am ngeen xaalis. Ah tey concert day fees dell ay am ngeen xaalis kon dafa mel ni hip hop tey taxaw na fu dëgër fi nga teg seen tànk moom. macha allah léegi. Eh, hip hop moom euh, donc ku ne avancé wul donc da ngay wax lu la neex rek. Mm-hmm. par rapport ak bu njëkk comme donc ni ñu koy waxee. Mm-hmm. tey hip hop bi fi mu toll nii mooy booy yi ñoo ko ŋànk. bu njëkk donc dañu waxan classique moo fi nekk xam nga. Mm-hmm. old school yi nekk fi doon def lu nice. lu nice a nice a nice a nice. mais hip hop donc dafa avancé ba instant bii nii donc mën nañu wax ne trap shit bi sax moo ko nangu. donc parce que booy yi nga fay gis ñu ci mel ne ay Ngaaga. ay mm-hmm. Diip ay Karbala. Mm-hmm. ay Samba Peuzzi. Mm-hmm. donc ñoo fi nekk ay ay Kiil ay One Lyrical Omzo xam nga. ñoo fi nekk mais tamit ñu ngi def lu nice franchement parlant ñu ngi def lu nice a nice di def lu dope parce que hip hop moo toll foofu affaire bi day avancé. day avancé quoi. Mm. mu ngi naaj daal mu ngi dóob sax ci man ni ma ko gisee. Mm. mu ngi dóob par rapport bu njëkk gars message yi ñu doon véhiculé. muy jàll. gars bu njëkk message yi moo gënoon jàll. que moo gënoon a jàll. moo gënoon a jàll foofu bu njëkk parce que old school yi moom donc dañ doon def attention ci seen écriture. Mm-hmm. donc di di di xalaat. di xalaat di bind lu nice loo xamante ne nii donc nit ki toog dana ko mën a déglu carrément mm, te ba tey son yi day tegu ba tey day tegu ba léegi day gën a nice mm-hmm. loo koy déglu mu mel ne lu bees la ci yaw voilà mm-hmm. mais nag hip hop moo toll foofu affaire yi tolluwaay waay la tey mën naa wax ne booy foofu lañ toll esprit bi foofu la toll gars di def ay sound xam nga euh, bind trap shit mm-hmm. loolu ma xee yaa ma gën a naw mais nice parce que gars yi ngi koy tamit parce que ñu ngi def euh, ay son yoo xamante ni son yu am qualité la. macha allah mhm. donc di bind tamit loo xamante ni lu nice foofu la toll quoi dañuy nangu ni hip hop bi foofu la toll. Mhm. c'est important tey bu ñu demee ba euh, rap euh, tey bu njëkk kenn mhm. xalaatul ni tey old school yi dañu feesal tey ay stade Iba Mar. mais tey benn nit dof day ñëw feesal ko dell. Mhm. macha allah mhm. mu toll fi tey ku leen ko waxoon ay jamono loolu duñ ko gëm. mais mhm. hip hop tey egg na ci niveau bu mel ni aussi tamit am na benn job boo xam ne mag ñi ñoom ñoo ko def. ba tey tey booy am lu ñu am tey. waaw si loolu gars yi ko def. parce que bu may xool donc comme li nga waxee nit dof nit dof dafa ñëw imposé. donc ne lii dafa war a dem by force parce que gëm-gëm la quoi. donc mu teg li muy teg muy nice. en même temps chaque année da nga gis mu di ko def muy show of the year bi te mm. chaque année da nga naan bii moo dàq bi jàllu mm-hmm. donc kon mi ngi nice ñoom ñi ngi ñi boo xoolee fukkin kook tamit ñoom ñi ngi fi di dóor classique ba léegi te lu ñuy def à chaque fois donc day nice day mm-hmm. dóor da koy mën a déglu da a di ci gis sa bopp mm-hmm. donc mi ngi nice quoi mi ngi nice franchement mi ngi nice ba léegi hip hop boobu mi ngi nice mën naa wax ne bii sax yóbbulu ko dara a eh, am na ñoo xam ñi ngi extra yeewu fajar di dóor xam nga mm-hmm. mais am na ñoo xam ne aussi euh, facilité leen gën a wut ñu ngi gangs ñu ngi toj boutique yi mm-hmm. ñu ñu ngi agressé guddeeg bëccëg mm-hmm. aussi tamit yéen en tant que ay euh, porteur de voix yéen ñi nga xam ne aussi yéenay wax ak askan bi di wax ak jeunes yi euh, yooyu jeune tey ñi nga xam ne facilité leen jël bàyyi yoon bu baax bi dem ci facilité lan nga leen wax en tant que des rappeurs ah tegu wuñ ci yoon bu baax. Mm-hmm. donc parce que fii moom mooy li may wax rek zo. Mm-hmm. donc ku nekk ah xam nga donc li la war. Mm-hmm. ak li nga war a def. voilà bëgg bon moo fi nekk bon ak bëgg baax baax. voilà quoi léegi nag boo tànnee ne yoonu bon moom nga bëgg a def donc ki lay conseiller yow doo ko sax déglu. da ngay ay message ba sonn yow loolu rek nga mën mënoo fekk nit donc fi mu nekk nga dóor ko ne ko li nga def par la force li nga mën mooy sa plume nga yor donc bind sa texte véhiculer sa message jàllale ko mhm. ki ko déglu dana ko dégg jariñu ci soit mu dégg ko teg ko côté mhm. mooy comme ni ma lay wax ñi nga xamante ni donc xëy na live seen live ci lu bon lañ ko nar wala ci lu bëgg lu yomb lañ ko teg donc ñooñu moom daanaka doo leen mënal dara doo dara parce que booy wax sax duñ la déglu mhm. c'est comme si donc yow waxoo mhm. donc mais na la arrivé nga après nga topp ko mhm. euh, par rapport ak texte bi nga gis koo xam ni dafa changé te texte bi nga bind son bi la dégg moo tax mu changé ko est que mos na la mos na la arrivé en waaw waaw waaw parce que am na sama benn gaan boo xam ne mën naa la wax ne son boobu sax génn euh, par live la ko déglu donc par live la ko déglu muy benn son boo xamante nii donc euh, waar lay wax waaw mm-hmm. ah, ci waar lay waaw ci waar lay wax comme texte kii bi dóor waar mm-hmm. dóor waar mm-hmm. moom lay wax donc live la ko déglu donc son bi neex ko donc à chaque fois sax daf may proposé ne ma lu tax yow son bi doo ko génne donc ci moom laa mos a gis koo xamante nii moo toog ak man ne ma sound bii nii nga xam ne bind nga ko donc def na ci moom lu bëri loo xamante ne nii ba léegi rëccu ma ko quoi. ok donc daf may proposer à chaque fois ma génne ko te ba léegi sama bopp sax mënagul génn. Mhm. ok euh, ci sa solo on peut euh, pratiquement ci ci ci bind bi. Euh, mhm. daf ñuy yóbbu aussi pratiquement fii ci Daara. Mhm. nga gën a concentrer sa carrière solo. au niveau local. te on sait aussi c'est un peu difficile. fii euh, par rapport ak concert yi nga xam ni euh, pratiquement doo ko doo doo doo ko gis. le public boo xam ni tey euh, parfois ñu wuyu parfois du ñu wuyu. ça mm-hmm. reste à désirer au niveau local mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ni <coughs> yéen rappeurs yi. Mm-hmm. yéen a ngi koy dund à chaque fois est-ce que mën nga revenir sa carrière solo ak fii si Daara. le manque à gagner boo xam ni rappeurs yi tey ñu ngi koy dund. waaw waaw fii donc mën naa laa wax rab bi fa fii moom ni koy dundee métti na ah. Mhm. ni koy dundee métti na parce que man mën naa wax ne rab daara moom donc gisuma avancement am quoi. Mhm. day jafe donc pour nga gis ko yow sax. voilà mhm. parce que dama jàpp ne nag lañuy war a def mooy que ne rapport yi fi nekk. Hmm? bien vrai que am na ay talent caché. am na ay talent caché yoo xam ne ñu ngi fi. te ñu ngi def lu nice tamit. donc loolu man naa ngi koy gis mais pourquoi pas ñoom duñ job génn jot seen biir job moo en même temps dañu suudewul quoi gis naa ne fii nii donc gars yi suudewul voilà dafa am séparation parce que bu fekkente ne ñun ñoo nekk ci ci bi donc voilà ci game bi donc di def hip hop te real hip hop la ñuy def mhm. donc te hip hop daas la mi faa quoi donc daas la mi faa waaw c'est mhm. une famille mhm. dañoo war a génn xool donc lan moo doxul ak lan lañ war a def pour game bi dox def benn genre bloc suudewu donc xool donc lan mooy jafe-jafe bi ñu hmm. jéem faj loolu hmm. voilà ñun ñoo mën a def loo xamante ne nii donc public bi danañ leen mën a imposer loo xamante ne ñoom dañuy nangu bàyyi force hmm. Eh. loolu il faut ñu def ko il faut mu am il faut gars yi génn def benn bloc di mm-hmm. waxtaan ci hip hop. di waxtaan ci waaw sa job sa job bon benn instant aussi euh, ñu ko affaire nawetaan. Mm. organiser sa koñ. sa euh, koñ ñëw jàppale la benn instant aussi loolu aussi est-ce que dina tax hip hop bi avancé. du avancé du dem fenn. Mm-hmm. bu fekkente ne noonu lañ ko nar a doxalee fii du dem fen voilà parce que boo génnee fii yow boo génnee fii comme jëm Bawal. Mm-hmm. Ah, jëm Saalum Kaolack jëm am nga. Dakar Youmbur penku side bi ak yeneen side yëpp dañuy gis ne booy dañuy kife carrément hip hop waxu la ne dañuy euh, nekk ay ma réerandoo quoi ñëw rek mm-hmm. déglu saawun daal di tëb nangam nangam non mais booy fay da ngay toog di concert ñoom ñuy concert ak yow ah comme ça parce que xam nañ lan mooy hip hop miin mm-hmm. nañ ko et puis mooy loolu da ngay gis nga jékki-jékki def benn rang bu garaaw ah mais boo ñu tëb mm-hmm. kontaan yuuxu nga xam ne ñii donc ñi ngi bàyyi xel donc yow par rapport ak fii donc loolu dañ ko war a imposer mu nekk mhm. comprendre gars yi xam melomaan yi xam lan mooy hip hop mhm. donc xam ba xamaale sax lan mooy figure du style et tout donc donc dina dina tax hip hop bi gën a avancé quoi mhm. il faut gars yi génn job loolu il faut ñu génn job quoi mais du ku nekk toog sa poxos rek mooy loolu c'est difficile de voir tey par exemple nga nekk un rappeur nga toog xalaat bind toog concentré wu di répété ba pare amul foo ko yàqee métti na dafa metti loolu dafa metti trop voilà moo tax donc gars yi comme ni ma la ko waxee rek il faut ñu génn donc déema suuré wu nekk benn mm. joob loolu wan donc public daara loo xamante ni ñoom dana leen jaral bu ñu wootee te ñu ñëw wuy si mm-hmm. comprendre bu ñu wootee te ñëw wuyu si di bàyyi xel li ñuy def et que donc fii nii dama fa gis benn affaire boo xamante nii dama jaaxal muy ci loo woo nit rek pour moom da koy nax quoi ci loo woo nit rek pour moom da nga koy nax esprit foofu la toll alors que demewul noonu donc culture bi donc ñun ñoo ko mën a doxal mu dox mm-hmm. mais bu fekkente ne man rappeur bi man maa ko bëgg a doxal man kese du sotti. Mhm. man dama koy doxal melomaan bi doxal ko keneen ak keneen doxal ko. Mhm. donc ñu nekk benn bu ma wootee donc ñu wuyu si ma bu keneen wootee ñu wuyu ko amul koñ bi amul koñ ba daara la quoi. Mhm. comme li may wax donc man. Euh, from ba laa Bawol laa représente mais mënu ma génne sama bopp Sénégal kon mënu ma génne sama bopp Jolof effectivement voilà loolu la quoi ba pare fii nii maa ngi fekk ay mbokk carrément mën naa wax ne sax jolof jolof la mm-hmm. donc kon nag lu jëmale hip hop jolof kanam donc dama ci dox à chaque fois euh, quoi ñu ngi ci di ci def lepp lu ñu man quoi mais mais mais aussi tamit euh, ben problème bo xamni aussi gaay dañ koy joytu mm-hmm. xam nga euh, hip hop c'est tout un ensemble aussi quoi mm-hmm. mais fi da ngay gis rapper yo xamni staff aussi daf leen xaw manquer té staff aussi dafa nek lu am solo mm-hmm. ci ci ci ci ci rapper mais malheureusement fi pour nga gis un artiste bo xamni dafa am staff bu taw technique bo xamni am expérience ci li nga xamni mom moy hip hop c'est un peu difficile aussi ci ci ci jollof waaw waaw waaw waaw te am na nag mais mais mais jafe na. jafe na trop mooy li ma la wax rek mooy li ma la wax sànq nee naa la fii donc nit ki da koy woo dara sax mu yaakaar ne da nga koy nax. Mm-hmm. alors que demewul noonu. bi liggéey la. Mm-hmm. donc staff dafa dafa dafa dafa nekk lu ah, am solo donc ci mm-hmm. ci ci artiste artiste bi daf ko war a am parce que dina ko jàppale ci yu bëree bëree bëree bëree dina ko may doole may ko force donc mën na ko àggale fu fépp mu bëgg a àgg staff dafa am solo mais Euh, dama mooy li la wax rek da ngay woo nit ci dara donc xëy na du ci problème mu rapport yi quoi mm-hmm. mais mm-hmm. li tax ci mm-hmm. public bi la parce que da ngay woo mu yaakaar ne nii la ak naa la ak naa la wala nga woo nit mu yaakaar ne kii dafa ñàkk fayda alors que li mu nekk moom gëm-gëmam la loolu laay fam la donc ci la mën a porte de voix la il faut tamit ñu xam ko rapport bi nekkul koo xamante nii donc benn vaurien la donc ci balaa balaa lay dund non non mm-hmm. loolu naka gars yi bàyyi xel mm-hmm. donc rapport donc mooy koo xamante ni ku am solo la parce que yow koo xamante ni daf lay fayital mm-hmm. nga toog fi nga toog mu yor kàllaamaam ratatatatatatatata wax a dee ah xaalisam en même temps dem génne ko rien que pour toi donc je pense que loolu noonu mal war nga ko mën a rendre quoi pourquoi pas il faut ñu bàyyi loolu xel bàyyi xel te aussi tamit ne ñun donc bindkat yi la ñuy bind dafa metti da ngay toog di xalaat bind sa texte doo xam ñaata temps nga ci def mhm. ah chaque fois da ngay bind ba pare xoolaat ne ah man est-ce que li ma bind naa na des fois sax nga xool tëdd xam nga bindaat mhm. voilà il faut gars yi bàyyi xel ci loolu xam ne donc lii dafa metti il faut donc ñu am ñoo xamante ni ñu ngi suñu wet ñoom tamit dañu jàppale dañu may doole voilà soxla nañ ko quoi. Euh, par rapport nga xam ne yaa ngi koy abordé ci sa texte. Mm-hmm. est ce que mun nga tam euh, chaque fois ngay concentré euh, pour ñu ñi ñi xamul bu baax a baax. Mm-hmm. waaw waaw waaw waaw tam moom ku ko xam tamit xam ne moom donc thème. donc du lu jafe ci maanaam. Mm-hmm. thème moom donc sama affaire la quoi dama naan sama affaire la. ok voilà bind naa ay thèmes yu bëree bëree bëree bëri thème bu ne. foo xalaat rek daanaka donc mën naa wax ne donc xaar. bus donc moi lol projet nangam nangam ok live ce hmm. link ak euh, yenn label yi studio yi est ce hmm. que ya ngi leni jégué ay gars ñu lay contacter wa wa donc loolu moom ñu ngi koy am quoi. Mhm. koy am côté DK comme li wax rek ñun euh, bu donc nañ musique en 100%, pour mhm. donc xëy donc de famille mhm. pour gagner notre vie voilà mais. am na ay label yoo xam ne ñu ngi may contacter donc pour ma dem fa mais xëy na donc manque de temps moo tax mënu ma dem mm-hmm. xam nga ñu mm-hmm. voilà mm-hmm. toog teg yenn affaires yi mais alhamdulilah donc lépp rek ñun dañ ko teg ci patience quoi donc xaar gëm yàlla ne bés dana ñëw donc lépp tegee ko donc mooy loolu pour l'instant ñu ngi ak euh, def aar ok def art record donc foofu lañ nekk di joob ak ñoom ndànk-ndànk voilà ñu ngi ci quoi jaajëf est-ce que nga revenir un ci projet yi nga xam ni am nga ko war ko tek mu jégué wala yo xamni à long terme la tek projet yi wa wa wa projet mom zo ñing ci kawam ñing ci kawam bu yagul dara je pense que à 14 février. génn nañ fi Dama la love. Dama la love mhm. ñëwaat nañ tegaat le 15 juillet bi benn freestyle. MNT may ko nopp tuuti. donc gaa yaa ngi di ko suivre ko ko bëgg kii tamit mën nga dem YouTube def fitam di nga ko am live and day. ok loolu c'est aussi ñu ngi hmm. ñu ngi ci ay projet yoo xamante ni ñu ngi ñëw ah. incha hmm. allah na gars yi góolu rek. du yàgg dara xëy na d'ici peu de temps donc dina am lu leen wàcceel. Hmm. mbas mi lan nga ciy wax gars yi balaa ñuy tàggatoo. waaw mbas mi gars yi moytu ah yi fagaru parce que fagaru moo gën faju bañ bañ a négliger bañ di wax naan amut ak dugg na fii génn na faa. Hmm. fagaru bu baax jël ci seen i matuwaay quoi. donc hmm. tey seen xale yi di raxasoo ndox ak saabu donc di. mais mais gis naa balaa ngay tàggatoo. Eh, rapport yu bëri ci Sénégal. Hmm. gox yu bëri yi gars yi ànd def ay featuring def ay son par rapport ak Covid bi mais daara gisaguma ko pour pourquoi lan moo waral loolu. ah mooy li ma la wax sànq rek xëy na donc gars yi ñoo boolawut. Hmm. gaa yi ñoo defut benn bloc. Hmm. gaa yi ñoo gënut di waxtaan. gars yi ñoo ñoo ñoo ñoo réeroo seen biir loolu la rek. mais su fekkente ne am na donc kenn koo xamante nii mi ngi dox loolu à chaque fois donc di ko dox di di di di veille ci loolu je que dina am kon gars yi dinañ mais nag li ma la wax rek moo fi nekk xëy na kenn ku nekk yaa ngi sa puqus di nekk sa yëfi bopp loolu la rek ah. ñu bàyyi waaw li muy tàggatoo mooy kulukulu ka la gën a kawe du fi ñeme man a fii tam fa mu awee fañ ko nawee dëgg la fa ñeme man àll ba ma dëy askay booy du gopp la ma jox may baytol dootul booy man dama wéré di ci mine rëdd gëdd di shine bëgg sëgg ci café di wine es ba wes dëgg di fine sës rëkk ci bamba ji neba ma mine neba du ñu bàyyi ndigal ñun ay taaliba lañ foo ñu fekk dañ ne bégal ñun ay du dégg suñu galañ ki gis muy dem yéene koo jàmmuwaay yàlla bu ñu sàkkee c'est pour ñu koy jàmmuwaay maani nga du dama laa gën a bandi ñëw fii teg rab bu la mën a gondi may zoe nga toog bandi solaar nga mais dama laa gën a mandi man gisuma sama kanam ku bandi damay zoe beneen la ku bangi defeat to the I'm not my fucking name I'm the band game the tank them I'm not afraid like Eminem look at the tangle no blame never do my rap the mon rap yag yag dinga masigi no blame man nane man nane am nine laugh man ek man nane man big rap laugh fan nane man niga xam na fan lane du man wang di palane am na dole ken duma dane te ram ye gëna kem tane ak ma mëna toroxal saytane man dama deg daaj ma kuma lamb daaj ma li nekk sa bopp de la wëndal dama koy def mentalement wax nga jaajëf waaw man man ma fa dàq bind ba waaye wax ma. jaajëf fi toom fi toom ok ça c'est un plaisir. ñu dalal la ci UD TV ci Showtime. Mm-hmm. Euh, di kontaan ci yow bu baax a baax euh, vraiment di am mbégte partagé ak yow. Mm-hmm. Euh, plateau bi nga nekk koo xam ni ku maîtriser nga hip hop la di la souhaiter Shawdat di la souhaiter bien du succès. Mm-hmm. ci li nga nekk am na solo teg ci sa tànk bu baax a baax. jëm ca kanam incha allah ñu ngi lay delloo ziar bu baax. dila jaajeufal ci invité invité bi di am contenté bu baaxa baaxa baaxa baax ci ñi koy suivre aussi di len jaajeufal ñom ñep di len give respect jaajeuf gaay bu respect à vous mi ngi nonu mu nekkon uh, showtime